man moom xam naa ne damaa ñàkk jom sama yaay dafa maa jur nag xam ne damaa ñàkk jom ma kër gi sama papa dàq ma kër gi sama maam dàq ma si kër gi sama nijaay dàq ma si kër gi sama ëpp ëpp na sax koor ma si sax benn kon mais koor gi barke sëñ bi comme ñaka ñee dinaa si wóor cinquante trois jours si koor gii dinaa ko si ay waay bu may woo ah après bi gën a dëggee Allô Allô Oui, là C'est moi C'est toi, toi qui Le ramadan Rifmatin eh, eh, eh, Kau kamera, kau kamera ya kalau nara mana? Ya mau bangun tuh lepas tuh ya umi. Malah, mana lima dong lebih damai fen. Waru masih kau dua. Kau iya kan bees bu ma déene ah lu koy déene cinquante jours yooyu nga wax wax cee doole yeneen cinquante jours muy cent ah. te loolu yëpp da nga ko war a woor ndax naa dee de man ma ko xaw ma di nga dee wala doo demee si xam ne duñ ko woor du ko mës a woor parce que ren dama indaale ay caw sa xiir yoo xam ni boo wooru rek maa ray naa ah waaw dinaa woor kay moom di ko def ah xamoo loolu waaw woor waaw ba pare ah avant koor ngay ñëw Vâng. không? được cái di ừ, vâng, vâng. nào gunge. waaw xam nga léegi. gunge xam naa ko bu fekkee ñëwee nga yow ànd ak moom. waaw ah gunge ko. ah dix jours avant. waaw après. waaw eggali gunge bi. ah bu seen mbootaay yàlla la. man ko may seet. waaw c' est moi waaw man là, mua la. moi bu gën a puissant ci moi. ndeysaan xam nga loolu. waaw waaw. ni nga ko def wala. dinaa ko def. waaw di nga ko def. dinaa ko. xanaa gisoo luñ génn lu bees. lu mu. caasa fii. caasa. caasa. yow ya, kan, man man man sax appel bu ma jël góor wala dara ma daal bu ma jël appelu góor. di nga ma jël nag di nga ko def wala. du ma jël appelu góor mën na nekk wala léegi coupé yaa eh maa la.